joxe information ba ca ña ca des ñu tiit nangoo signé ba ñu reyee ñett dañoo ñëw jox leen information bi ni ñett ñee rey nañ leen ndax li ñu leen signaloo dañu ko gàntal ndax gouverneur da leen ni dama bëgg ngeen signé ne amul benn autorité bu dul man ñu tiit signé moom ñu yóbbu ko fa ñu yóbbuwoon ñett ña faagaagal leen ñu échec ñu échec fa ba ñu échecgee te tubaab bëggut a échec ñu génne ngànnaaya ak deret ja wan ko ñee ni leen def nañ ko ni ñu def ñee te fekk loolu amul ñooña signé moom mu signé la ilaha illallah moom du reconnaître benn autorité bu dul bu yàlla looloo waraloon ñu libéré ñépp ni kii kat ndem moo gàntal li nu bëgg nanu ko sànk ñu waxtaan ci seen biir décret ba wàcc ñu yóbbu ko ndakaaru nettali na boppam la mu dajjal jóob nettali boppam fi mu jaar Conakry Karambassa fi mu jaar yépp ba ni mu eggee Gabon lépp mu nettali ko la mu fa nekk lépp nag ba muy soog a dem def na fa juróomi at yoo xamante ni bii kenn kenn kenn kenn ku xam ci moom dara amul du maam Thierno mi mu bàyyeeloon njaboot gi du keneen juróomi at moom la fa nekk yoo xam ne kenn xamul ci lu mu nekk ba tubaab yi binduloo Cheikh Sidiya benn lettre ñu adressé ko maam Thierno Birahim wan ko ni ko yewil ñëpp libéral ñëpp njabootu jàmbur gi ndax kee faat nan ko nekkatul àdduna borom daaru mooti borom dëkk bii te booba sànc guñu dëkk bii am ca jaaxle way juram soxna Faati Isa ni ko du lu am amul bu ko gëm te boo ko sàkkoo gis di nga koo gis ne na moo may dugal ci biir bàmmeel te ay waxam du deñ te man maa ngi nii ku tedd kii borom daaru mu ci sàkk koo gis mu tontu ko bataaxel def ci ay tur xonqal ko ni ko diw ak diw ak diw nañ ma moytu te mandu ci sama mbir mu nekk fa ngoram ak fitam ak jomam ca lam waxantoon ak alayhi salaatu yonent bi ñu jil xadim shukru ilahi hana fi turabi baxnda jamili sabiri feexa terabi loolu waxi ku tedd ki la mu mel ni safar wi bu teroo lañuy lay nuru ni dañuy tàmbali ngir di ko santale boromam duñu xaar ba 18 safar ba dibéer ginnaaw suba dafa mel ni dafa mel ni jamono bu nekk bu nu amee dégg bu nu koy santale boroomam dëgg la laa tafalu shay'an bi xayri iznin bu ñëwee màggal gi nañu koy santale boroomam waaye bu nu demee ca Cheikh Ibrahim baa ñu dem ca sëriñ Mbaye saar du ñu xaar safar yawmiyan shahriyan saatan jamono bu nekk saison yi weer yi at yi bis yi temps yi zaman yi heure yi minute yi seconde yi chaque instant dañu ko war di santle boroomam ba noppi nag di ko beral ak cant loolu moo waral loolu moo waral bi xale yi indee seeni yéene ci 5 septembre bi xam ni man maa jël sama datu juddu yóbbu ko 5 septembre ngir ku tedd ki mook tubaab ya ca ndar ca bureau ba ca ba mu nee laa ilaha illallah te nekkoon faak juróom-ñett fukk ak juróom juróom-ñett fukk ak ñett nga xam ni juróom-ñett fukk lañu ak ñeent moom tubaab léppam daf koy chiffrer daf koy daf koy numériser ñu ne koy moom moo nekk numéro 4 ñu xëbal ñett ña rey leen joxe information ba ca ña ca des ñu tiit nangoo signé ba ñu reyee ñett dañoo ñëw jox leen information bi ne ñett ñee rey nañ leen